li ko li ko li nga xam ne moo ko laltaay nee na dafa doon loo xamante ne am na ay diggante yoo xamante ne mën naa doon mbégte waaye am na ay diggante yoo xamante ne sax mën naa doon lëndëm lëndëm waaye loolu lépp dafa doon loo xamante ne lu soree loo xam ne ñoom jàpp nañ ko te xam nañ ko bu baax a baax a baax diggante Sénégal ak ak France. nee na moo taxit ñoom ñu ngi fexe ba saa su ne ñuy waxtaan ak di yëgoo ak di sàmm loolee. ci jamono ji rawatina ci jamono ji nga xam ne àdduna bi ay jafe-jafe ak yu yu yu tar yoo xamante ne da koy da koy romb ñoom ñu ngi wéyal loolu di sàmm loolu bu baax. nga xam ne diggante France ak Sénégal kenn ku ci ne yaa ngi mel ni kuy wóolu sa morom di ko doyloo it di di di di jàppalante bu baax. nee na bëgg na la wax itam ne France daal fi ñu toll nii euh, am na pas-pasu wekk lislaam ak fonk ko nee na ndax dafay diine joo xamante ne France. am na fu am na diggante boo xamante ne bu yàgg la boo xamante ne seq na kook lislaam nee na xam gu ñu xam loolu moo tax sax ñu jël ay matuwaay boo xamante ne am na benn barab boo xamante ne euh, dañ koo fàggu foofu ca France te dara taxu koo jóg lu dul di gëstu li nga xam ne dafa jëm ci cosaanal lislaam nee na tamit institut bu mag bi nga xam ne moom lañu ñuy wax Louvre am na fa benn euh, département boo xam ne bànqaas boo xamante ne euh, lislaam rek moo ko tax a jóg moom lañ ko jagleel ak tamit ba tey jii euh, li nga xam ne muy gëstu wàllu lislaam soxal na leen ba tax institut bi nga xam ne moom mooy institut du monde arabe moom tamit ñoom dañ cee def lu ne di ca sonn ngir xam lislaam